yi gis nga leen ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi ci digg géew bi di waajal dox ci diggante Serigne Ndiaye ak Doudou Sané ndaysaan Serigne Ndiaye ngay wër géew bi Doudou Sané moom fa mu taxaw jugee fa du yomb waaw individuel la par drapeau chef de l'État fii ku daan da yóbbu sa waaw waaw ku daan da ngay yóbbu sa kër ñetti arbitre yi ñëw nañ taxaw beneen troisième arbitre bi ñëw na fañ na ñuy mujj ndaysaan fan la ñuy mujj ñoom ñaar ngi noonu arbitre bi leen di présenter présentation pour les lutteurs. les treize présidents des CNG du Sénégal. Aïcha. Aïcha. arbitre Mathia Mané Tidiane Ndiaye 26 las Demba Diop allez on passe Doudou Sané waaj a sifflé plus de cent plus de cent kilos Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané arbitre bi sifflé na mbokk yi 22e édition drapeau chef de l'État fii ci Diourbel Serigne Ndiaye 2 moom moo woon ginnaaw Doudou Sané daw na jëli ko sàcc na ko sàcc na ko da ko bëgg a plaqué Serigne Ndiaye dinañ bëree ñoom ñaar dinañ bëree Doudou Sané Serigne Ndiaye dañoo tolloo doole du yomb ñoom ñaar te xat na ko padd na ko padd ba ñëw na. ndeysaan Doudou Sané da koy padd dina ko paddaat Doudou Sané Serigne Ndiaye ña ngay xoolante ci bët dañoo jegeente ndeysaan daw na jëli ko du yomb Doudou Sané Serigne Ndiaye de Dakar Fatick ñoom ñaar ngi noonu Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou daw na jëli na ko Serigne daw na jël da ngay da ngay felante lu nar a Dourou Sané Serigne Ndiaye ñaari borom doole lañ Serigne Ndiaye plaqué na ko bañ na bañ na Dourou sol na Dourou sol na Serigne tol na laa ilaaha illallaah eh bëre doole Général Malika daw na romb ci ñaar yi ñuy bëree ndeysaan stade ba toj na ndeysaan Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Dakar ak Fatick waaw lii nag individuel la individuel bi ku daan da ngay yóbbu kii day yóbbu Dakar kii yóbbu Fatick Serigne Ndiaye Doudou Sané ña ngay ngàddante jàpp nga koy manœuvrer daa bëgg mu bëree du yomb lay laay la laa Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye faqat na ko Doudou Sané bañ na ndeysaan ñoom ñaar a ngi bëre arbitre bi nee na Doudou Sané bëreel nee na ko bëreel ñaari borom doole la du mën a yomb oh du yomb du yomb ñoom ñaar Ndiaye 2 ndeysaan mbokk yi ci teewaayu Matar Ba ministre des sports ndaysaan ci teewaayu président Bira Sène président du CNG de lutte ci teewaayu Mame Boye Diao mbokk yi combat noonu dox ci diggante Dour Sané ak Serigne ci teewaayu lancé roi des arènes Manga 2 ci teewaayu Moustapha Gueye lancé Tigre de Fass mbokk yi ñu ngi noonu Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 eh arbitre bi àtte na lu xew avertissement Doudou Sané avertissement Serigne Ndiaye tàqalikoo nañ tàqalikoo nañ ñoom ñaar ndeysaan eh Serigne Ndiaye dem na ci cimikaay ba Serigne Ndiaye dem na ci cimikaay bi ndaysaan ñoom ñaar ku ci nekk naan na ndaysaan am na ku yëngal stade ba jóg nañ mbokk yi dellu nañ ñaari mbër ku ci nekk noppalu na ba pare dellu siwaat nañ fii laa ilaaha illallah arbi bi sifle woon na Serigne Ndiaye de Fass Doudou Sané Fatick Doudou Sané jeexal Serigne bañ na ñoom ñaar dañuy daw na jëli ko fàqal na ko Serigne Ndiaye de daan na nee na tey dama koy daan deux fois Serigne Ndiaye deux daal sa ci mee kay nga ñëwaat ma daan la laa ilaaha illallaah Serigne Ndiaye deux daan la Doudou Sané Koreas Serigne Ndiaye jël na njëkk bi ci wàllu individuel bi de 100 kilos bii Doudou Sané jàpp na gémmiñ de Père Moussa Ba ma ngay fecc kott na Serigne Serigne Ndiaye mi du yomb nee na na ñëwaat dama ñëw nee dama ñëw Serigne la yëngal nee na dama ñëw nee na ko dama ñëw rendi Serigne Ndiaye de laay laay la laa ee lamb jóg na waay waaw waaw awaay lamb gi waay ndeysaan